ba gaa yi baax yépp naan est-ce que yaaram maa ngi wayal bàyyi Serigne Cheikh Saliou mii may wayal ku ko way bis bii ci da ngay jàll wi si Serigne boobee moo ma gën a lekk samay moroom ba bu ma duggee ci seen biir damay sam xorom Serigne Saliou Mbacke kii moo jara nee naa la xar baaxit baayam sëriñ ba mbayam moo ko ràngoo ba gaa yi baax yi bu naan est waalo mi may lambul lambe Saaliw Sëriñ Tuuba moo dellusiwaat ci wér xéewal yi day dolli ko waat weddi lii wa ma ma waat Tuuba yi Seex Saaliw mooy góor gi woote xel kom di ko gor murit bu nekk gàddu njur mel ni ku jëm xarab ba dara ngir jëmi Sëriñ Saaliw sëriñ bu nekk ku sa sam féete fa mag ak ku ñoñam di tugg aw ñamam ngir jëmi Sëriñ Saaliw way kurli ji way ku ko bis bi ci dangay jàll wi xar baxi baayam si ndam yi moo ko rangoo digga daw maa ngeen jeex mbaa dugul islaam yeneen ku ko masa songo ngeen dee mbaa dugul islaam yeneen ku ko masa songo xeex ku ko masa songo xeex law law ma kana wujud fil wujud nabi walam yakun lana ruku an wa sujud sayyidina muhammad لأجلي قد قلق سساو جواي بلا سيدنا محمد nabe gën ñi gën ñëwoon ti gën ñi bëgg a ñëw an wara may way leeri leen min xatikun fil kainaati yenen jar naa jooy na beeri ñaan ba ca ñu may kalul fala may ayam na bee baayu Fatima na bee ku nu benn yaagan ku lu bind yaa raw ku lu bind yaa man daan nan ko woowe ala kulli fadlin fadla laaw fadla woo Seydina a gën ñëpp nabee gën ñi moo gën ñëwante gën ñi bëgg a ñëw yeneen Muhammadu safiyuna fil masere jooja waay الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أحمر الإداية وكوكب الإناية ربانية وي مصباح رحمة المصلاة نبي هو شمس دين الإسلام ما تعالى مولاه بالإزايقر ينتبي وحمايتي رعاية سرمالية وعلى مقام وفوق كل مقام وفضل له ينتبي على الأنبياء والمرسلين زاوي المراتب الإفسي قدوايقر diggante bamaare diggante maa ngeen de mbaa dugul islam yeneen ku ko masa songoxe ay nooni di ngeen daw bamaare masa songu xeer Seydina Muhammad mi may way ah yonent bi may way mooy jeer Mustafa amul marom nabi lay fatat lu xal bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi سيدنا محمد من نبي ولا رسول إلا خلق من نور طلعت البقية نبي فقوى العرش من أفر من لا سكن ولا أخزم يننتبي نبي قتل يرم ودار تخ gudul reyul bani fa tax suy mu ñooy géer ndeysaan ngir mi ga di mala xonkol ba mel ni xaarey taaw ñuulul weexul ba mel ni meew bu di kilifay géew bu mu teew su ma sandi reetaan leer ga génn ca gémmiñ ga lanu yàlla séddale isa takalama xarajat nuuran min benni sana it lut lutiya seydina muhammad gën gi mindeef ëlëm na ma gin na ni taaram wóor na ma Mustafa taaram yem na ma taaw moom raw na taar bu nit di yor sidina muhammad boppam bamat bëtam yërëy bu la xoolee leer ya ni xuy jama bani naaj buy dara xëyeey taaw tànkam ya taa rusen najor sidina muhammad fekkoon na ma dugg néegu góor laata ma judd moom mooy li wóor juddam nga xëy ma boore jële gi ne ak njabar Seydina Muhammad tànkam ya nooy ni ay wëttéen cere ñamaan ba ku ko seen xam ne xayaa bëgg tere Seydina Muhammad gàttul ba di ndaama mi dama day ñaaw njoolul ba ni suleet min ma day walam yakun mu tama walam yakun mu kal sama bal fa ka pulu sama min mu tan mi Seydina Muhammad xam ne xayaaru laalamina moo sell jëm sol cere yi Seydina Muhammad waxam du neex jaaraw xalam yonent bi làmmiñam ak tuñam yayam caf koy loram gàcceel naa lem rusu marjaana lay nuru lore jajawaay nabi sidina muhammad na yàlla sàkke aw dënam yaatal ko sol ca ay xikam mbagga sekk xaatimam ku xool xaatim ba teqa sidina muhammad nabi mi may bindu tëstanam ya mel gàcca na ay xaalisigal ku mu ma sawaxal ëpp la cër mu sawaar naan na na na na amul tiit seydina muhammad sikkim wu jekk waa rafet faasam ya taaru los fa jotam na mbay badalaw la ca teggeele ñañan ya ak seeni kawar seydina muhammad baaraamam sew yeelam sewul nosul barul te dotomul sëggul siiñul bi bara yu la woo jëlu rasul du wër kudër seydina muhammad nabi rek a taaru ba yàlla yónnee suuratu yaasin li taaru taaru jikko jàkko gën a taaru moom yonent bi wa asmanu min kalam taraqatu aynin wa akmalu min kalam taali di nisaaw xulata mubaraan min kulli haybin jojawaay ka annaka xakulata kama tasawooy ngir anwaaroo leer yeneen yaa min xatikuna fil kaayinaati njarnaal yaa sidina Muhammad nabi bu masaana dox ba dëggu xeer lu wa dëgg dana nooy ba mel ni wëtteel nabi bu masan di dox niir yaay daw di ànd moom jooja waay sama turandoo bu ma saana dox weñ mastanaaw tak ci kawam mm, jooja waay bu masan di dox nabi daawul ges bu xoolee kanamam loola ko yàlla dawan ca gannaawam nabi bu masan di dox bu wonee lor bu ko yàbbee suuf dana ko nabb ba dooto ko seen wal ardu ma yahriju minhu tamtanin kasaasu baabo xakkan an umu tani man xalfa um yara kama yara amaam tanaam wayno wal xalbu laayu naam lam yatta saabu xattan وهو سابع ولد المقتونا إلي التابع تغرف دوابو إن يركبو تاو تأتي إلي صلاة لا تقربو نبي بمسانا ورفس مام ورقلم أي مام ورمام ماما ماما وربكلا دولم ألوان تكنا ليونل سوى يخلو جلوس جلسا صلى عليه إلا أمساء وصبايقر لا لا لا لا لولا هما أعبد الورنك موم kenn du bindu sunu maam Adama wa ma saaba ya suma lay way nga may may jar nga way yónneen bi yaara may yaa am pay leer gaañi ci lëndëm maa yey way yónneen bi yow laa xam yow laa gëm li ma ci lay way maa gën geer ci dunya aywa aywa yoon woo gis tàmbali ba day metti lool dan sama mag yi wax na ko sànq nee na Cheikh ni ñaq borom lu waay jëf yaa ko moom lu waay jëful moom moo ko mbaa may la caay daney geer eh. nga xëralul borom lu waay jëf yaa ko moom lu waay jëful moomoo ko mbaa ñu may la tàmbali boo gis dañu naan dafa waane gurgurlul dana baax moo tax ma way naan ma doore am ñu naan dafa waane ñee sax naan day ngis tel laa gëm yow laay way joojo waay waay naa ci yeneen bind bind xool sama bind xeeb ko ma tegaat sama xalima bindaat naa ci yeneen naan mooy nazir munzir xaatimul anbiyaa xool sama bind xeeb ko ragal xotti fooy def ko ca ndox ko naane tey ma bindaat yeneen man it bi yàlla doone kenn moom képp moom dong na amal ci lañu cëralee muhammadu rasulullah ba tax na lépp luy taar lu rafet ak luy takk jama ak or lépp lu leen dàq li ko gën a neex ci bëgg rasulullah king cosmétique bu ngeen ma dégloo yàlla ngeen dajeek naa nel amin yàlla na palaas yi bari ci barke rasulullah al amin na béy na béy na Aminata Gueye ki la jàngal la tuddee waa sa turandooy ki Yàlla teral moo la tax a bàyyi l'école dem ca daara tagg yonent be moom lan ma jàngal moom laay way Seydina Muhammad rëyul ndawul njoolul gàttul waaye loo njool njool boo taxaweeg nabi dalay ñaq bi daan génn ci yaram wi lañ daan def ci ndox jàmm ñi def ko parfum njool màkka yaa leen gën Moustapha yaay giiru géer ñee maa ngi ñaan ko aw yàlla nga gis ak yeneen Moustapha yaay giiru géer ñee loxo Moustapha giiru géer ñee yàlla jëlee giiru géer ñee dafa sax mu giiru géer ñee naabe kon loxo ca kaw dëgg dëgg yow lay way di waxtaane maam saaliwoor ana soppi sëriñ saaliwoor yaa nu tere yalwaane yalwaane saaliwoor ay Serigne Saliou dëgg dëgg yow laay woy waxtaane waa Saliou Serigne Saliou ndeysaan boo soxlaa ba ñëw ca moom mu xëcc loola eey seen yaakaar boobee Mouhamed sa soppe ba Serigne Saliou sa Serigne Bakala defar ba nga mel nii nga mel moom Serigne Saliou boo jàqee ba dem ca mu dàq loola dal di daw sang boo jàqee ba dem ca daw ak bëri yërmande Serigne Saliou ak bëri kaaraange Serigne Saliou ma way dafay gën a neex Serigne Saliou no bu ci yalwaan danga nari caaxaan baay saal sang Serigne Béthio mo defar ndaw ñe Mbàkke bala danan la jooy yuxu nan ba faf xalamba yow Serigne Saliou irham jami alwara la da ñaane ya khadian rada a ma xawta ma xatna a u xalbu min dararin bi jaay afdali man lillahi xad la jaay Serigne Saliou bo jaqe ba dem ca moom mu dàq loola dal di daw Serigne Saliou bo soxla ba ñëw ca saal mu xëcc loola dal di ñëw ak bëri yërmande Serigne Saliou ak bëri kaaraange Serigne Saliou ma way dafay gën a neex Serigne Saliou dem na nonga yaa ngi jooyo Sali Xaadim ay waay sunu maam jee Serigne Saliou def naa Serigne Saliou laajal lu la neex gu Maam Bamba baay ba waay lu la neex laaj Serigne Saliou def man dégg naa waaye waaye waaye Serigne Saliou danaan yeewu xaaji guddi di xool ndax ndongo yee sangu nan ndongo bu sangul mbay sangat la ndax yërmande jabari lool baay sal ndongo bu ci tëddoo moom mbaa nga toog ak sa morom mbay sal dana la xool ba xam yaa ngi ci jameey sal uxaadatil bi tey wal jasmi wa illi saalihu aka amoon yërmande Serigne Saliou aka bari kaaraange Serigne ma way la dafay gën a neex yow sa turandoo Serigne Saliou boo soxlaa ba ñëw ca moom mu xëcc loola dal eey Serigne Saliou boo daqee ba dem ca moom mu dàq loola dal di daw ak bëri kaaraange Serigne Saliou ak amoon yërmande Serigne Saliou ma way la dafay gën a neex Serigne Saliou li nga def ci ñun rëy na budul woon nag moom ñu sànku ah Serigne Saliou dëkke cofeel la leneen la ay coona la duñ ko wedde ay coona la ay coona la jërëjëf boo leen de la sentiment bi di toll moo xam ngay murit ngay tiijaan foo mën a bokk buñ dewee Serigne Saliou da nga koy yëg force ndax noonu la toll moom Serigne Saliou yow mi koy way sax da mel ni da ne ci beneen dimension moo tax ma ni ko boo soxlaa ba dem ca moom sax ca loola dal di ñëw ay Serigne Saliou boo jàqee ba dem ca mu dàqal loola dal di daw ak bëri yërmande Serigne Saliou wax naa fi amul soppe Serigne Saliou ko bari kaaraange bu ñëwaat sama jàq loola def ca bay dal mu xëcc loola daal ñëw Serigne Saliou baaxee li de metti na yow bu ko bëggee muñ Serigne Saliou doy loo yàlla xam laay kii ni mu mel amul fetneen borom jàppalala xabaar lakalang jaan dara ñaaro jaari umul xuraasal merul maraam usuman maab sëriñ saaliw borom merul maraam usuman maab daara ñaaro daara umul xuraat ñaari daara ca ngaabu borom jawar ko sarun ko jàqee ba dem ca moom mu dàq loola dal di daw Muhammad sa waaje boo soxlaa ba ñëw ca moom mu xëcc loola dal di ñëw ak bëri yërmande Sëriñ Saaliw ak bari kaaraange Serigne Saliou ma way la dafay gën a neex ma ne li nga def ñun rëy na bu dul woon moom ñu sànku ah Serigne Saliou ndeke bëgg la leneen la leneen la duñ ko dee man coofin ay coono la dul ko dee ay coono ay coono la nangu nan ko Serigne Saliou yow seet gis naa ku sopp Serigne Saliou yow laa doon axamaadan axamaada kugiñ cosmétique moom nga doon seete naa Serigne Saliou aduna ngoogu ci sunu kanam daw yaa waa dibi dibi dibi la la la la bu la bur bi yàlla bëggee daal lay booleeg Serigne Saliou ah yow dama ma kele ni seetee loxo kaw ala yàllaay dugg dugg yow laay woy ba dee de metti na boo ko bëggee muñ bëgg ko muñ doy loo xam laay kii li mu mel amul fa ne jaayoo neexul ba neexul na bi laa bëgg maa ngi ñaan ku ko fi tasu rek yàlla na ko fi tasu ci kanamu Serigne Touba dama bëgg ngeen teg ci gaaw ay micro yi na ñëpp def nii ku ci gën a for yàlla nga gis sa génn bi te dégguma dara de ma ni neexul ba neexul nabi laa bëgg sama buntu xol yow laa ko ubbil ndax yaay dëgg ay cun butik li may ñaan mooy dina waayaan laa kaa tag foo bëgg lay dee ndax yow rekk lay tag man sama cofeel ci yow day gën di màgg fu kawe fu kawe laa la teg nit ci muy tag dama bëgg a doon yow sa géew dina laa ka tage foo bëgg lay dem ndax yow rek lay tag njaay loo njaay loo o oh nabi nabi yàlla la tànn ngay sunu nawbee yow laa ubbi sama buntu xol bee ndax yaa ma fal yaa ma fal kenn du ma follee jërëjëf yàlla ñëpp am jàmm xam naa ni bu yaram wi gër tàng rek du ma arrêté te dama war a def ba Ndakaaru jàng foofu te Tawfekh Mbaye mi ngi toog te xam naa ne ñeneen ak ñeneen ñi ngi ñëw ndax dan danu ñëpp la dan mu dafa nekk nit ku baax na ma ko waxoon ca ba may tàmbali rek nit ku am yëg ndax man bariwaane na fu nit di dem duma fa gis barki nabil Mustafa bu nit dajeeg man ci programme bu dul sama programme boo xam ne dan maa fay ma déplacé wu raar na nit gis ma ci ci tànt ndax du ma taxawaalu fu ma dem rek farata moo ma yëkkati te dangaa nekk nit ku jar a jógal ndax da am yëg daf ma ni dama am yéene barki nabil Mustafa waat ko ci Serigne Saliou waat ko ci ci yaayam ne ma am naa yéene fekk la ci baas may la kayitu kër ak oto ne ma yow ak diw xam nga loolu daa nekk cër goo xam ni yàlla yéene rek lay fay ndax Cheikh Ibrahima moo ne yéene mu ëpp pay jëf di leen jëf te boole koog yéene kon nag yàlla na yàlla dafa la jàmm ci barke Seydina Mouhamed yàlla la fa la cat ba boutique yi nekk boutique bi bën a baree bare bare ndax da am ti daa uman li xëyri yi ma dax is xëyroo li mat xii xatanma salax boo di tagg yonente bi ba ñàkk loo ñaan yàlla def dem nag am nañ ci tuuti cër ñu tuddee ñu ko ba noppi ñu dëkk di ko tagg yàlla nga yokk yàgg sa mag ji ak ñi nga xam ne ñooy tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam Tawfekh Mbaye moom suma xarit la na ma koy ba may tàmbali nit ku baax la ndax man dama bëgg nit kuy kuy yokk fi nga ne ndax tagg yonent bi dafa yaatu moo xam nga nga koy jàng ci xasida maam borom Tuubaa yi moo xam ci alaaji Malick moo xam ci Cheikh Nasir Sall fu mu mën a doon ndax sama papa dafa ma daan wax tagg yonent bi dafa weesu Abdalaaye baayam Amina yaayam doxloo na Màkka doxloo na a euh, Màkka sax joxloo a garab ga waxloo mbëtt ma xam nga loolu ñëpp xam nañ ko te loolu moo gën a tudd ci miracle yonent bi kon mi ngi mel ni booy tàgg Serigne Touba wala Serigne Saliou war nga ko bindal texte yoo xam ne ku ko dégg coxeelam yokk ci moom te moom ci loolu la nekk yàlla yàlla defal la jàmm ak tawféex yàq mbooleem kuy tàgg yonent bi Ndiaye Lo sama rakk kontaan naa ci yow ak suma xarit bi di euh, moom mooy Mouhamad ci da nga ci wax dëgg goo xam ne wallaahi azim bi ma ci gën a touché mooy boo demee ba am 50 ans amatoo droit ci mbooloo ndax kàddu googu dama cee gis sama papa lool ndax bari na fu bari foo xam ne doo ko fa sax gis boo waxee mun la du ma dem fenn di xëccoo te sama doom nekk ci mbir mi ñi ñu bëgg te loolu daa nekk nit euh, euh, cër goo xam ne yàlla du ko du ko du ko jox n'importe qui waaw kon da ngaa wax joo xam ne wax ju leer la maa ngi lay ñaanal tawféex ak taysiir di jégaluwaat bu baax sa micro mi ngi noonu maa ngi jégaluwaat bu baax na ma feex mu dëng rek na ma ñëpp jégal sama jëmu ji la waaye nag yonent bi lépp ma jub kon jërëjëfati Mouhamed internet yi ñu ngi leen di waat bu baax a baax di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñu topp tey nag ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy Touba ci juste ci côté rond point Daara Jolof bi rek inauguration boutique suñu frère suñu mbokk taalibee di dan moom lañu ñu mais ñu fekk fi ay ndaanaan ndaanaan yoo xamante ni internationalement dañ leen a reconnaître ñuy def liggéey bu am solo ci euh, diine l'islam Euh, ma ma feggoog nag sama frère sama xarit Mouhamed Alla Diop di xaritu daan euh, di kool wóolëreem moo tax mu bàyyi activité mi mu doon def yëpp ñëw tey pour jëmmal li nga xamante ne moom mooy bés bi euh, mon frère maa ngi lay ziar maa ngi lay dellu baax baax suma frère di leen nuyu di nuyu bu baax a baax euh, site internet yi nga xam yëpp teew nañ fi di leen bëggee di ziar bu baax dëkku si dëkk bu sell bi ñu ne muy Touba. Mhm. di ñaanal bu baax xalif général bi fi nekk muy euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yal na yàlla yàggal ko fi te wéral ko ñu ngi ziar ñëpp waaw ah, ngi lay delloo ziar mais ñu gis ni tey journée bi xat na ne mhm. da nga bàyyi li ngay def yëpp jógee dakaar euh, ba Touba Euh, lan mooy euh, sa ak dan ba nga mën a def yooyu sacrifice. waaw dane olof dane ku yokkul rek yaa wàññi te dan dafa nekk ci yokk bu am solo di jeune boo xam ne mi ngi innové mu ngi wane ne que liggéey rek moom solo te mi ngi motivé ñi nga xam ne suñu morom lañu nekk nit ku baax am yëg ci man loolu nag. lu mu ma si xew rek wax ma ko te nag doomu aadama bu ne ki la yëg rek moo la sonal looloo waral ma yàq sama yitte yëpp ñëw wusi ko ba mu xam ne yëg googu maa ngi ko jéem a delloo mm. loolu mooy sama si si euh, euh, moom boo doon jël référencement ci moom lan ngay jël exact waaw muy motivation bi ma la wax rek référence mooy motivation bi motivé ñi mu bokkal euh, particulièrement ak jeunes nga xam ne ñoom ñoo nekk si Sénégal yëpp mën a war a xool ci moom ndax mooy wax ju bari amul solo liggéey rek moom solo doomu aadama bu bu nekk boo xëyee am loo woon rek yaa ngi yokk léegi nag góorgóorlu boobu muy góorgóorlu ubbi ay boutique euh, partout dans le monde du ma ko yemale Sénégal kese loolu lañ koy ñaanal mais mu jógee Thiès dem Tivaouane ñëw nangam di dem région yi ba Touba loolu jom la kon mu gën a motiver ndaw ñi ñu gën a bàyyi xel ni xale liggéey rek moo ko war ba boo demee ba am ay doom wala ñu kii nga mën a nag noppalu say doom mën a di àggale si sa si sa mhm. effectivement mais la situation du pays lan nga siy wax en tant que porteur de voix waaw ñu jël lépp teg yàlla rek sunu borom bi nga xam ne moom moo moom jàmm mu jàmmal ñu ndax ñun Sénégal rek la ñu am fi mooy suñu dëkk fi la ñu juddoo yore fi màggee fi am nañ Serigne Touba am Cheikh Nassir Sadbou am Alaaji Malick am Maam Limaamu Laay am Boukounta Ndiassane am Baye Baye Niass nañ ñaan ci seen barke suñu borom defal ñu jàmm ci dëkk bi ki fi gën toog ci dëkk bi suñu Sénégal mën a jëm sa kanam incha allah ah yàlla suñu borom baax na li xew maari nag suñu borom moo ko xam waaye yàlla jàmm xew bi jaay na bi mu sawa d'accord ah, ngay wax ci kàddu yi nga xamante ni sa frère na ko di Mouhamed Allo aussi Euh, maa ngi maa ngi lay nuyu d'abord maa ngi euh, sant yàlla di julli ci yenante bi alayhi salaatu wasalaam di am mbégte ak contentement rek ndax euh, wax dëgg yàlla ni ma Sénégalais yi def wax dëgg yàlla kawe na njot Mouhamed Alla Diop li mu wax lépp macha allah rabbi dëggal na lépp ñoom moom ci moom laay tàmbalee moom dafa nekk nit koo xamante ni dafa dafa fidèle sincère sama diggante man ak moom lii ma def Touba su ma ko defoon Tamba wala ma ko France bu mënee ñëw dana ñëw te wax dëgg yàlla ku ne xam ne ni temps yombul waxuma laa moom ci li mu ne di ci yëngu nga xamante ni amuñu benn temps waaye lu ma munti xew la day bàyyi lépp lu mu jàpp ñëw seet si ma ànd ak man bis bi xoolal Touba ak Dakar ni mu soree ak ni mu xatee mu taal otoom ñëw ba fii ni ma koy santee nag noonu laay santee bépp client King Cosmétique di sant Sénégal gépp di sant 14 régions yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Sénégal gépp di sant ñi nekk ci biir réew ak nekk ci biti réew te di wax ni